ay ca mi ngoogu ay ca comme ni nga ko waxee rek euh, fi mu toll nii actuellement bis o benn sami na nekk euh, ku ne xam ne nag bu ñu gisee nag euh, monsieur le ministre duñ ko laaj lan moo war a ñëw waaye ko yëg-yëgam rek tey di ko nuyu monsieur le ministre Omaro mu Cheikh Béthio ñu ngi lay nuyu. kontaan naa sama xarit sama jigéen yàlla na sa jàmm yàgg maa ngi lay ziare di la béggee di am kontaan bu rëy ak mbégte mu rëy di nuyu sa concert bi di ko ñaanal yàlla guddal faram téwéral ay cëram di nuyu presse bi ma fekk yëpp ku lim juum. li may wax bis bu set rek ñu nekk presse bi ñoo bokku ndey ñoo bokk bàyyi ku bëgg fu mu fanaan la ak ku bëgg ku ko wéttali delloo bunt bi du leen boole ñoom ñun la ñuy topp waaye ñun it ñoom rek la ñuy topp kon yàlla na ànd bi sax te yàlla mosul ñu cat ak seytaane pexe noonu ba ñu sax ci liggéey jàmm ak salaam te kenn du lor sa morom incha allah maam kontaan nag ak mbégte bu bu rëy rëy rëy ci teew ci bis bi tey ndax Sëñ Fallou Benjamin day kenn ci ñun ku ne xam na ne bu ñu nee Faramareen ne orchestre am daan Fallou Benjamin def ci am cër bu rëy rëy ndax nag tubaarkàlla ay bëy yu ànd di nga xam ne kat ay bëy ngi ànd waaye foo foo jaar am bu jiitu am yu topp seen ginnaaw mbooloo mën nañ doon téeméer waaye da ciy am benn ba ñaar ci gën a ràññeeku. te sëñ Fallou Benjamin li orchestre am daanaka staff bi di rëy rëy rëy bokkuñ ñu ci ñiñ ci gën a ràññee ñoo xam ne fu ñu taxaw ñu ne ma nga ne loolu nag mbiru yàlla la kon su wootee diine de gala nga day sargal président son excellence Waly Ballago Seck ak magam Mbaye Sy Ndiaye amuñu lu ñuy def lu dul ñëw teew xool li war ci bis bi ñu def ko loolu moo waral sunu teewaay moo waral li sunu yëg-yëg moo waral li sunu yéene def ko sunu yëfi bopp moo tax kenn jiituwuñu fi bi ñuy ñëw taaluñu lumière taaluñu rajo taaluñu dara te boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar parce que ñoo xewle ñoo woote. yéen tubaarikàlla ñoom ñooy xewloo waaye ñoo daal di wootee fan yi nag ñu daal di gis ni euh, en tant que euh, ministre te président tubaarikàlla lu ko neex rek day neex ministre am kon donc euh, fi mu toll nii gis na ni am na ay mots yoo xamante ni waa Ramadane am na ñoo xam ne seppeeku nan génn di wax yenn wax yoo xamante ni président de la République bu ko déggoon xam naa ne dina ko naqare te xam naa ne yow mii di ministre nag dégg nga ko mm. kaddu yooyu ñaar yooyu di jug di ñëw ci président ñu koy wax naan dafa immature yooyu boo koy déggoo nu lay def yëguma ko de yàlla seere na ko yëguma ko man moom yàlla dafa dogal ay nopp garmi laa yor du ma dégg lu ñaaw duma ko wax fuñ koy waxee duma ko fekkee te fexe naa ba sama téléphone bii ñi ma sékkal yorante ay contact ñaam sama répertoire am sama numéro amul ku ma ci yab ba di ma yónni lu naqari sama xol bi ak loo xam ne bu ma ko déggee jëlee ci xol bu tàng amul. léeg-léeg nag du ñàkk nga doxantu TikTok ba jot ci dara loolu yaa ko jotal sa bopp waaye wax dëgg yàlla man yooyu wax jotuma ci man li ma jot mooy ay wax yu rafet. ak ay wax yu baax jëmee ci nit ñu baax ñi jëmee ci gor ñi jëmee ci ñi nga xam ne tubaarkàlla ban jàppee ba léegi bàyyiwunu jëm ci son excellence président Waly Ballago Seck man loolu laa dégg te looloo ma ñor te ci loolu laa ne. ah da loolu dafa war wareef la parce que assan ak Kéba du ñuy jàmbur ci fàllu ay baayam lañu ay ndijaayam lañu ay magam lañu kon tey cër bi président Wally am ci moom cër bu ñu toll. la papa Keba am ci moom la papa Assane am ci moom kon nag su jëlee bis bi ñu toll beral leen ci ak cër ci rendre hommage dinañ ci sargal dinañ ci jox seen wàccuwaay li ko war rek la def kon nag no ambiance fii day métti day tàng ko bees li mu wax barki démb deux civil bees nee na ambianceur kuñ ko jiñ ci senegal dana lay jay kuñ ko jiin rek dan la ko tappal waaye moomoo ko nee na moom moom moom ambiance ndax mooy le king mooy le roi te nee na loolu incha allahu rabbi tey sénégalais dañ ci xam dara te man gëm naa ko. non tey lay gën a neex ndax tey doomam moo xewle rakkam moo xewle mbokkam moo xewle nawleem moo xewle employé moo xewle. tey président bu yegg see fii da ciy xëpp bomb lu bees tàq ngeen di gis incha allah kontaan ci moom di ko wax ne am na cër ci président am na cër ci réew mi am na cër ci musique bi na foncé te doxal fi mu ko teg fii la bu ko bàyyi na wéyale te xam ne ñun ñu ngi ci ginnaawam te incha allah lu mu kupp rek ñu dagg incha allah waaw xam nga man loolu dégguma ko te man du ma tontu ci lu ma déggul du ma ci lu ma gisul. Pawlish bi muy ngénte daf ma rek téléphone am woo ma na ma grand frère monsieur le ministre ma ne ko waa mu ne ma damay tudd te bëgg naa nga teew ci. li ma war mooy kat sama nawle sama rak sama doom sama xarit yëgal na ma ma dem wuy ju ko dem naa wuy ju ko mais yeneen wax yu ju juddu mu koy wax man jotuma ci. te yaakaar naa nag wax dëgg yàlla su fekkoon man taxaw naa Pawlish taxaw mu wax loolu kon leneen la ñuy wax waaye nag ay waxi internet. ak ay waxi mbedd man wax dëgg yàlla aw ma ci aw ma ci lu ma ci tontu sama sama sama niveau dafa dépassé foofu wax dëgg yàlla. président Waly man Omaro man Omaro laa wax nga xam ne ku ne xam na ni maay ministre am yor kàddoom su ma xewle woon audio ko ko du ca teew su ma xewle woon woo ko téléphone wax ko ko du ca teew. moo ëpp personnalité ci Sénégal laa la wax dignité personnalité fulla ak fayda. man bi ma juddoo ak tey gisuma nit ku xóob président Wally ci réew mi. da ma rek ma yeggale bébé gisuma ku xóob ay waxi ñëw ak ñàkk ñëw président nekkul foofu waaye am na dignité ak personnalité ak maanaa boo xam ne képp ku mu boole ci njabootam nga gëm na yow ci njaboot nga bokk. boo xewlee am na lu la war ca moom mooy yëkkati say tànk sol sab dàll dem ba biir këram amoo fa sens interdit. kenn terewul la nga dugg fa nga dugg ci kër gi naa ne président ñu ne la mi ngi fi mu recevoir la ngeen toog nga ne ko man kat xew le bis sàngam nangam ak sàngam te bëgg na nga teew ci ndax boobu tër la am ci ñun waaye boobu tërit la toll ci réew mi. Mhm. président du ku ñu yëgal xew ci audio du ku ñu yëgal xew ci message du ku ñu yëgal xew ci appel ku ko def doo ko gis parce que niveau ci Sénégal dafa dépassé foofu président la. du chef de quartier du chef de canton du chef de village président la président boo koy yëgal xew da ngay wu ñëw ba këram yëgal ko mu xam ne yow mii kat cër bi ko yàlla jox ci réew mi nangul nga ko mu delloo ko ñëw teew ci sa bis. waaye doone audio naa wala message naa ko yooyu waxi reewande la fayda yoo xam ne amul bopp amul génn président niveau dépassé na foofu s'il te plaît bu ma bu leen ma chauffé loo parce que. maa ngi tàng te bëgguma tàng waaw non non non nañu arrêté nañu arrêté il faut ñu arrêté bu benn question ñëwaat parce que damay énervé te man damay wax ba a ba wax ba wax lu ma war a wax wala ma wax loo xam ne ëllëg ci biir dañ may woo ma ci yedd te man dépassé naa boobu niveau ku ne xam na ne ci un demi yi ma ànd président Waly sénégalais yi gis nañ Omaro bu bees tàkk bu matire bu màgg bu responsable bu yox wax kilifa di ko dox ak di ko wax kon li jot jàll jàll na nañ ci yem. te eh, te eh, eh, nañ ci yem ah. ñu ñu ñu ñu bàyyi l'avenir nous jugera yëf yaa ngi ci sunu kanam jamono dina àtte àddina dina àtte sénégalais danañ àtte incha allah.